Uh-huh. ñaan bi kum réew mu naqari réew mu fees dell ak i jafe-jafe nit ñi sonn nanu ñàkkum ndox tappale ay suuf ñàkk lu nu lekk ndax korona bi politiciens yi tàmbale yëngatu Sénégal ci lii la nekk jamono ji ba tax enquête yéen kaay ne waa Macky Sall njiit réew mi moom fan la jëm ak jafe-jafe yu dul xaaj jeex kuy mbokkam see ba nanga ko ñaanal de turbine yéen kaay dëggal ko na ko askanu ndakaaru marak leen di bëgg a coono bi korona bi teg doomu aadama yi ba ci Cheikh yi wana luubal sàcc xaalis gu mag gi ñu xamal ci réew mi ba tax yéen a kaay bi ne makki jafe-jafe yi fañ koo wër ndombo kon nag jaaxle na info yéen a kaay ne askanu géejawaay ñoom fa ñoo jóg taxaw ne fa aar suuf sa kenn du ko fa caxat-caxatee wal fa jër yéen a kaay na ko jafe-jafe yi jeex a gudde ubbite école bi makk ak jëwrinam yi fa ñoo nar a def li ñuy wax far force fara force doole mbaam neex naqari dañuy tijji école te matuwaayu noppeegut moo tax boo mooy tudd jàll de si du quotidien na mi lépp ubbite école bi jàngalekat yi ak nguur gi ak waajuru ndongo yi déggoo amul ci seen biir le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal ndax wàllu wér-gi-yaram gi jumtuwaay yi ñu war a amal ci école yi dara yembut ci ñu ne déete waay nawet baa ñu ni di tàmbali te école yu bëri Sénégal ay mbaar gattax sàkket bu yàlla ji tawee ku fay jàngee xam nga loolu mën ta nekk Cheikh Mbow bu ko si def na jëwriñ ci kay bakkanam bi ci la teg ngir ñu jàng weeru a a kaay na kon foogu ne élèves yi lañ leen nar a sacrifier génération bii le soleil yéen a kaay na ko déedéet ndax calendrier examen yi wax nañ ko certificat ñaar fukki fan ci weeru août la BFM ak baccalauréat examen yi weeru septembre la te mooy ne wax juróy ji mooy élèves seen bopp ñoo bugg te delluwaat école laas yéen na ko li wax nii neexut jëwrin bi de taala moom suwee année scolaire bi ci loolu la nekk jëwrin ji sax fanay ay dof dëgg jànguñ ko ci jamonoy corona bi mars avril mai ba juin nee nañ waajuru ndongo yi nañ ko fay ñu ne yéen ngeen feebar kenn na fi fayu tus jàngalu leen ñu leen koy fay duñ ko def may leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne njabootu Fares porté nañu plainte Cheikh Yérim Seck yóbbu ko ci yoon l'observateur moo ñu ko xamal les échos yéen a kaay na Cheikh Yérim fi mu toll ni yoon fo koo tere attekat bi ne bu mu wax ci dossier bi la mu ñu wax moom direct news mooy ne Christian Samra directeur tekki na ndomba tànkam seetal nee na lim gis ni xamut ko te dana toj kaasi nag dëgg jëpp lay leeral laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na Lamine Diack attekat ya France buñ ko naree tëj kaso loolu mooy na rey nañ ko rek te dee deem jotagut awakaam ba moo ko wax l'observateur yeggee ñu ko ak koo xam ne fa feebar alab kese la feebar askanu ndar mooy statut fédar ba moom lañ bëggatu a gis ci seen dëkk ba ñu bëri ci askan wa na fañ koy toj bëggatuñ sax benn place ñu tuddee ko fédar ba koo xam ne suñ maam yi toroxal gu nekk def na leen ko l'observateur nañu statut fédar ba ba kay féewale na askanu ndar xaaj leen ñaar source ay yéen a kaay xëy waxtaan wu yaatu ak jëwriñ ji di Diouf Sarr ma ngay leeral ne Aïda Mbodj li wax waru tax ñu di ko tëkku na fañ koy rey ndax moom politicien la te waru garam lay def te xanaa xamu leen li wax noonu pour ma leeral xaalisu corona ba yëf yi ni mu demee assemblée nationale loolu fa may dimbale man corona gi nag dëgg dogal yu bëri bàyyi nañ ko waaye warta tax nit ñi di def ma tey muy gën a tasaaroo mu jur musiba de libération na ko xanaa juraat musiba kay bët bu set ñu dégg léegi ñu ngi ci juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom benn ana lu gën a garaaw loolu tàggat yaram a mag bi Real xaw tuuti ko noonu mu ray Valence démb fa koo mbuqi ba mu tëdd ñetti bal ci dara stade yéen a ko xamal record yéen na Papis Demba Cissé ma ngay toj Turquie fu ne lay dugalee ñetti bal la toj caax ya yóbbu équipe ba final Gaston Mbengue ma ngay wax combat yi mu a tëgg ci sunu lamb yéen a kaay ba ca njëkk Balla Gaye 2 Boy Niang 2 Bombardier Eumeu Sène Gris Bordeaux Sa Thiès Rëg-rëg ak Tapha Tine nee na bu gaañu d'accord léegi mu joxe avance ma avancé ci l'observateur fekk fa mbir yu garaaw yu ñuy wax ne fa xam boo maraîcher garage oto ya nekk Dakar wàllu ngóor jigéen ak wiol ak mbir yu doy war leneen lu doy waar yéeme lool ma nga xamee ci dëkk bu sell ba Tuubaa Mbàkke yaaw seet tan benn maire bu màgget xam juróom-ñaar fukki at moo am corona ñu yóbbu ko fañ ñuy fajee ñi am corona njabootam ñëw na leen bàyyi leen suñu yaay fañ koy yóbbu amul benn corona ngeen di wax lu leen neex rek ah gars yi neen baax na yóbbu leen ba ñuy yóbbu seen yaay ba mu yegg ci kër ga ak ba muy faatu benn la vox populi moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy ne képp ko am mbokk moodu moodu jamono ji ñu toll ñu leen yónneewut xaalis yéen ñi nekk Sénégal bu leen leen de ndax moodu moodu mu toll nii ñu ko fañ koo amut fañoo sonn corona bi bitim réew neexatut sonn nañ de am na moodu moodu yoo xam ne yéen ñi nekk Sénégal bu ngeen leen mën a yónnee xaalis dimbale leen def leen ko ndax soxla nañ ko de vox populi moom di ñu xamal mbir mu reetaan lu lool xamee ca marché central bu diwaanu Thiès a yow benn dof carrément moo fa doon xeex ak benn waay bu màndi naan tuxu yàmba bay bajj bajjee ka kalli kalli yéen a kaay bi nag waaye seen xeex ba xeex gënul koo métti de waa ma ne man de xaw ma kan moo leen di àttee dof ak màndikat buy xeex xaw ma yéen ñaar kan moo ci gën a dof en fàtte bi moom dof na ba pare waaye màndikat ba moom far rakkaaju dof baa ko